Maman, je ne sais pas si tu partages euh, l'avis de Momo concernant les Momo j'aime même Momo, s'il te plaît. Momo j'aime euh, si les Momo elle a une point actuel, quand Mansour fait traîne en justice Mimi, Diapouneni, affaire de euh, retournement de situation, de Ken Radon Je me dis que, en fait, pour moi, il a mélangé des choses je me dis rapport peut-être aussi son avis maintenant nga déjà à la et aussi est-ce que tu partages l'avis de ki euh, nga alors je pense que connaître nekk à euh, propre appréciation à hein. moi. Mhm. Euh, c'est le plus important mais je pense qu'il faut d'abord nous situer.

correctionnel le 7 mai 2024. Mhm. La citation directe en police correctionnelle appelle un procès sans enquête de police. Légui, ci Benen Walbi, que les conseils de Mimi Touré notamment euh, maître Ndeye Touré et Moussa nous avons adressé au conseil euh, de Mansour Faye une signification de la vérité des faits de diffamation le 17 mai et vise les pages 121 et 125 du rapport de la Cour des comptes Légui, juste un exemple hein, masul fay li tax mu porté plainte ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré mooy Mimi dafa ne am na ay rapport yoo xamante ne cité nañ leen ci structure bi nga xamante ne moom la Mansour Faye nekkoon. Mhm. Mansour fay génn ne non non non li Mimi Touré wax amul parce que amul benn rapport bi nga xamante ne moom moom ma épinglé mhm. dafa am ay organes yi nga xamante ne ñoom déterminer la bonne gouvernance sur le plan financier mhm. on entend parler de la cour des comptes OFNAC IGE IGF j'en cite COF ak yeneen ak yeneen mhm. léegi nag dafa am ci benn processus boo xamante ne maa ngi leen dégg ngeen di wax sur euh, le procès de diffamation bi mhm. opposé woon Ousmane Sonko à Mame Niang à l'époque ñu bari ñi ngi doon wax ne que est-ce que Ousmane Sonko amoon na ay preuves si kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko doon wax ne que Mame Niang y a des rapports yi nga xamante ne moom moo épinglé tey jii je vais être dans l'affirmation où l'actuel premier ministre dafa yëkkati ay kàddu mais dossier bi nga xamante ne moom laa doon tudd tey jii mi ngi sama kaw table mm-hmm. donc j'affirme que ce dossier-là existe. Mhm. parce que le premier ministre nous la responsabilité. Mhm. du wax yenn wax yoo fondement. donc je pense que tu le le non. c'est à son accession au pouvoir. effectivement donc tu voilà dit voilà au moment où il le disait il n'y avait pas de preuve. certains certains diront que ce document n'avait pas la qualité de rapport Il ne et devait pas aussi euh, être dans les mains de ki nga xamante mom moom di Ousmane Sonko est un opposant à ce moment xam nga xam nga xam nga y a un régime sortant mhm. si régime bi nga xamante mom mo moo fi nekkoon mhm. dañu don dégg tout le temps ñuy wax ne que y a des rapports épinglé nañ diw wala mhm. ñeneen ak ñeneen mais tey jii on a la chance encore une fois am ayen autorité yi nga xamante ne mm-hmm. li ñu def jëmale ko sur la bonne gouvernance ñi ngi koy def mm-hmm. loolu c'est la réalité mm-hmm. man tey quand j'entends le ministre de la justice Ousmane Diagne mu yëkkati ay kàddu ne ñi nga tout ne tudd dans les rapports yon dina def li nga xamante ne moom quand Ousmane Sonko dit que ñi nga xamante ne jël nañu l'argent du contribuable dinañ ko gokki waat man damay gëm ne que effectivement amna li nga xamantene mom la rapport yi wax. Mhm. léegi nak régime bi nga xamantene mom mo fi nekkoon dañu doon constater la lenteur des enquêtes. Mhm. loolu mom moy différence bi. Mhm. mais aja ñaata scandale mom nga dégg ci biir réew mi. ñaata rapport nga dégg ne que tay jii ni suñu déclencher l'information judiciaire mais les accusés dans ces rapports là yoon dina len top léegi nak man dafa am ben processus bo xamantene mom lay top cest à dire il y' a eu des assises avec les réformes de la justice. le premier ministre Ousmane Sonko à chaque fois mu génn di sur la bonne gouvernance da ngay gis sur le conseil supérieur de la magistrature mi ngi wax qu'il y a des magistrats qui xamante il faut que jëm changer pour démarrer sur de nouvelles bases. Mm-hmm. mais man li ma gëm ba y a des autorités étatiques.

Les mu nekk di def c'est des trucs d'enfantillage. et ça ne fait pas peur. léegi nag nous xam nga lan moo koy euh, déterminer. Hmm. les enquêtes. les enquêtes avec les organes yi nga xamante ne tey jii ñoom. pare nañu seen ay rapport euh, les conclusions. mais justement avant de nous euh, quand le ce nouveau régime venait euh, à accéder au pouvoir. Mm-hmm. on a vu une sortie ou un communiqué toujours de Mame qui disait que il reste zen parce que aucun rapport ne l'a épinglé mais après jusqu'à jusqu'à jusque là c'est deux personnes qui ont fait ku mais sur la table on a telle personne ou telle personne waaw xam que loolu moom laa lay wax. Mhm. gis nga li tënk bonne gouvernance dafa bëri mhm. mais quand on dëgg kàddu yi nga xamante ne tey suñu autorités koy mhm. on s'attend à beaucoup de choses. la rupture ça se fait. j'ai eu à faire un entretien avec euh, Samou Biagi. lan à un moment donné nous ko doon menacé parce que tout simplement l'actuel euh, DG de la presse y yor des documents yo xamantene il y a des personnalités qui ont été citées yo xamantene ne jël nañu xaalisu askan wi. Mhm. on ne vient pas Adja. Mhm. rapport court des comptes ñom ñoom yëgal nañu xamal nañu ne que mais plus de 1000 milliards fi mo waroon jaar jaarufa mhm. L'ancien ministre de la justice l'ancien garde des Sceaux Ismaël Madior Fall biñ ko à l'époque, il avait parlé de médiation pénale sénégalais yi génn ne ñun d'accordu ñu ci médiation pénale parce que dans tolloon époque on avait des problèmes dans les hôpitaux oxygène est un réel facteur. Mhm. suñu économie bi les sénégalais nekkoon pas ay moment yoo xamante ne expliquer. Mhm. est-ce qu'il est logique de parler de médiation pénale non le premier ministre actuellement Guen ne ay médiation pénale mi ngi ko jël tege ko fële ñi nga ne ñoom pas jël xaalis askan bi yoon dina def lu nekkuñu fii di fayantoo mhm. mais par contre il y a la justice mhm. et ñun li ñu jàngal mooy cette justice doit avoir une certaine liberté am une certaine indépendance di jël les bonnes décisions et que quand la justice doit être rendue daf koy rendre au nom du peuple tout en disant li nga xamante ne moom mooy la euh, euh, waaw yéen am naa lu ma ciy bëgg a leeral te boo dégloo tamit di nga comprendre bàyyi naa ma boo dégloo di nga comprendre <laughs> gis nga état bi fi nekkoon mhm. moom moo tegoon mesure am yoo xam ni manam déjà dañ ne les rapports sont destinés au public yow ci Bassirou jomay fay ci lañ gis plus de 40 rapports ñu gis publié ko mhm. peuple bi mën ci am accès mhm. mais boy xol état bi fi ñëwoon da nga mës dégg ñu rapport bi génn nañ parce que loolu lañ tegoon comme seen principe te ku wax ñu toppee la diffamation ne la amoo preuve mais bu ko génnewul teg ko ci table ji nu ñuy amee preuve mhm. léegi nag ku ci régime boobu ku ci bokkoon ba tey foog ne wàcc na mais mesures yooyu mooy dawaat ci réew mi ba tey tel n'est pas le mhm. parce que loolu lañ tegoon comme prétexte. Mhm. soo waxee ñu ne la amoo preuve demal indi preuve. Mhm. gis nga mënuñu nekk ci réew mi sàcc suñu xaalis too état war leen a topp topp leen toppagu leen léegi ñoom ñu wëlbatiku di bun xatal maanaam di genre menace la quoi. yow sàcc nga sa kër kaso la war a doon parce que suñuy bien nga jël. dinay jox un exemple mille milliards yi Covid 19 bi biñ

muy santé éducation agriculture alimentaire amul secteur bu dox xaalis bobu nak ñu doon lebi mu toll ci 18100 milliards ñu bayiko fi comme dette sous secteur yee doxoon duñ leen ko laaj. Mhm. fofu la bëgge ñu xam. Mhm. mënu ñu sacc suñu xaalis toog nit ko wax ñu toppale diffamation diffamation ci valeur la bokk manam débat d'idée ci réew la bokk liberté d'expression chacun est libre de dire ce qu'il pense mais nit ki bu dugg ci mom bul dugg ci valeur am di ko menacer wala et cetera mais côté rapport yi kon xanaa kon kenn dox ci kenn treize def na ko fi Baara Ndiaye Baara wax Baara wax ci moom mu xëy porter ko plainte mhm. Cheikh Baara mhm. ne ko da nga ma diffamé pour quelle raison yooyu noonu ay détails la kuñ ci épinglé jëlal say preuve ni nga géré woon nga dem ci yoon nga jébbal ko ko mhm. bu yoon nee la ak lii lañ la topp montrez yow say dépenses fa nga ko exécuté su dee clair net et précis am nga preuve ñu libéré la. alors ñu jàll. merci